sant mu ngi leen di gërëm asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. wa alaa'ihi al-adiida wassalaatu wassalaamu ala sayyidina wa xabibina wa qudwatina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmain wa baad maaliya waziri daaxiliya seydi abdallahi daawuda jàllo والوفد المرافق لمعاليكم من الوزراء والنواب والمسؤولين الممثلين لفخامة رئيس سيد مكي صل أعنه الله أصحاب المعالي السادة الأجلاء أعضاء الوفد المغربي الممثل لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه الإخوة الأعزاء ممثلي بيوتات الدينية السادة أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في السنغال أسهاد ممثل القطاع السياسي والمدني والمنظمات الإنسانية السادة العلماء الأجلاء الأئمة الفضلاء المقدمون النجباء الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته باسم الخليفة العام للطريقة التجانية شيخ أحمد تيجان سي مكتوم نرحب بكم جميعا في هذه البلدة المباركة التي يستوي فيها العاكف والبادي قائلين لكم حللتم أهلا ونزلتم سهلا wa antum bayna ixwaanikum wa dabiikum fi ardikum naxmadu llaha taala an jamacana marratan uxra fi hadi alxadarati almaymuna fi rixaabi cheikh alxaaji malik si radi allahu anhu linaxtafila bi mawlidi xayri albariya wa qudwatiha alladi صوره الخطاب القرآني بقوله وإنك لعلى خلق عظيم رسول أعظميته شملت كل زمان ومكان نحتفل فيه في وقت أصبح العالم يعيش في تيه وأزمة خلقية خطرة حيث يسيطر الأقوياء مديا على الضعفاء وحلت المادة محل القيم وحل التنافر محل الوحدة والتشاحن محل التعايش إلى أن قال لسان حال العالم الشر أريد بمن في الأرض am araada bihim rabbuhum rachada wa min huna taati ahamiyatu lixtifaali bilmawdi nabawi sharif wa bi fa bi shamailihi nastatiu an nuida siyaagata alaalam xata yasuuda al istiqraaru wa yaum alsalaamu fa taudu almiyaahu xuquqi alinsani المنحرفة عن مسارها إلى مجاريها الطبيعية وليس من باب الصدفة أن جاء شعار الاحتفال بالمولد النبوي في هذا العام يقول إن لنا في سيرة الرسول عبرة ففي ذلك تحريض للأمة الإسلامية على العودة إلى مرجعيتها الدينية fa ida kaana alaalamu alyowma bi xaajatin ila alcadaala walistiqraari alijtimaaci fa inna lahu fi siirati rasul la ibra wa ida kaana alaalamu yucaani alyowma min suui tawzici tharwaati mima tarattaba alayhi cadamu tawaasun aliqtisaadi fa inna lahu fi siirati rasuli la ibratan fi mafhumi alkasbi walinfaaqi wa mafhumi almilkiyati nafsiha wa ida kaana alaalam yucaani alyawma min dhawi alrajimaati waddabaabaati walqaazifaati allati laa tastasni bari'an wala tarxamu daciifan fa inna lahu fi siirati rasuli la ibratan fi tamkini daaimi silmi wa taayush laqad arhaba alaalamu nafsahu bisababi budihi an hadi alqiyami nabila fa xaana waqtu alawdati ilayha wa laqad ada almashaayixu alsenegaliyun amthaala saaxibi hadi alxadra cheikh alxaaji malik si dawran raidan fi waqti manhajiyati tarbawiyatin wa taalimiyatin wa tadribiyatin min sha'niha siyaaqatu lmuuminu saadiqu walmuwaatinu saalix yuaddi waajibaatihi qabla an yutaaliba bi xuquuqihi wa kaana hadafu cheikh alxaaji malik si fi tanzim hadihi almunasaba تزويد الفرد بما يقوي به إيمانه ويرشد به سلوكه ويسقل به قدراته ومولده به شرف وخير ففي التعظيم إنجاح الشجون ونحن أولاء اليوم نعيش هالة رهيبة من عدم الأمن والاستقرار أصبح القتل والنهب والغش والمراوغة والمكيدة والمكر السيء عملة متداولة في كل أنحاء العالم ولا تكاد ولا تكاد تجد شبرا في البسيطة إلا وسكانه في حالة الخوف والهلع الشديد كل ذلك بسبب الصراع المرير على المادة ومسبباتها من هنا تشتد الحاجة إلى ضرورة العودة إلى تعاليم الإسلام السمحة ولا يكون ذلك إلا بالعلم والتربية والتكوين وتلك هي اللبنات الأساسية للتعمير والتقدم وهي خير زاد للجيل الساعد الذي أصبح ينجرف إلى هاوية الفساد الخلقي abra taqaddumu technologie alladi huwa silaahu du xaddayni fal awdatu l awda ila taalim al islaam wa bismi al xalifati al aam cheikh ahmed tijaani si alladi yaquudu xilaafatahu an bucdin walakin an diraayatin wa xikmatin baaligatin naqlubu min almuwaatinina an yascaw qadra taqati li tamkini alwaxda fi ma baynahum walwuqufi janban ila janban maa sultaati rasmiya li tamkini al amni wa mukaafaxati al ijraami wa daahirati al qatli al muntashira fi al bilaadi wal bucdi an inchiqaaqi wal jidaali al xaabi fi kulli awsaati siyaasiyati wal ijtimaaiya wa dalika axsanu uslubin wa aysaru tariqin lilwuqufi ala mustawa ltaxaddi walxaddi min kaydi lkaaidin walraddi ala ittihaamaati dawi alafkaari majuura falwaqtu lilamal wa laysa litabaaduli tuham fa bilamali jaadi waliqlaasi waltakaatufi walazimati yatajasadu fi mujtamicina qawluhu taala falyacbuduu rabba hada albeyt alladi atcamahum min juin wa amanahum min xawf wa bismi alxalifati alam Cheikh Ahmed Tidiane Sy nataqaddamu bi shukri almustahaqi ila raisi aljumhuriyati Seydi Macky Sall wa ila jamici aadaai xukumatihi ala ma bazaluhu min majhudin لإنجاح هذه المناسبة نسأل الله أن يتولى جزاءهم ويعينهم في مسيرتهم لخدمة الشعب كما نشكر عاهل المغربية أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين محمد السادس ففي كل عام تبذل جلالته مجهودات muqaddira li injaaxi lmunasaba wallahu nasalu an yaxfadahu duxran lil ummati lislaamia kama nashkuru jamii aadaai silki diplomasi almuctamadina fi sénégal ala xusni wuqufihim maana wa shukru ljazil mawsulun kadalika ila kaafati alqiyaadati diinia ala wuqufiha maana janban ila janbin li injaaxi lmunasaba kama nataqaddamu bi shukri ljazil ila jamici alwufuudi alqaadima min alxaarij min xaariji albilaadi wa min jamici alqaaraat wa ashkuru ala hada alminbar shaqiqiyan in lam aqul nafsi cheikh Ababacar Sy Mansour wa cheikh alxaaji Malick Sy Dabakh faqad xafafa anni al a'baa al kathira fa kaana lii bi masabati naibi an il fail fa huma bi nisbati lii kalkatifayni bi nisbati lil jismi fa jazahum allahu an islaami walxadrati xayr aljaza wa kadalika raisu wa ada koskas aljihazu almunadim lil ihtifal fa lahum dawrun raidun fi najaaxi hadihi almunasabat xaytu yaatuuna qabla aljamia wa yarjicuuna bacda rujuci aljamia wallahu nadcu an tafida albarakat wa tushfa alcilal wa yacumu alsalaamu wa tuqda alxaajaatu wa tustaru alcuyuubu wa tuxfaru alzunuubu wa tujbaru alkusuuru wa yataxaqaqu alnasru lilmuminin aynama kaanu wa tunaalu albarakaatu alamima walaqibatu alxasana wa kullu aamin wa antum bi xayr wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu xam naa du war a gudd dañ koy résumer rek ndax mi ngiy guddi gannaaw ba ñu nuyoo suñu ministre de l'intérieur Abdoulaye Daouda Diallo ak délégation bi mu àndal ci ay ministre ak ay député ak ay responsable représenté fii son excellence monsieur Macky Sall yal na yàlla dimbale ñu ngi nuyu ministère yi mu àndal yëpp di nuyu itam membre yi délégation bi nga xam ni saaxibul jalaala al maghribi muhammadin sadis moo leen yónni xafizahu allahu wa raahu di nuyu itam suñu mbokk yi tedd yi nga xam ni dañu jóge ci néegu diine yi ci Sénégal lu ko dale ca suñu mbokk mu tëdd ma ca Tuuba jaar ci suñu mbokk mu tëdd mi ci cees ci Njaasaan muy maam bu Kunta ak mbooleem néegi diine yi ci Sénégal la dale ca Kawlax ak Kamburee nag ñoom ñëpp daal di nuyu itam membre circuit diplomatie al mu'tamidin fi Sénégal di nuyu secteur yëpp secteur politique yi secteur civil yi al munazamatul insaniya organisation humanitaire yi assaada al ulama al ajilla borom xam-xam yi fi teew al aimatul fudala imaam yi muqaddam yu teer baax yi ak mbokk yu góor yi ak mbokk yu jigéen yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu ci turu xalif général de Tijane Cheikh Ahmed Tijane si ñu ngi leen di wax itam marhaban bikum ci ci dëkk bu tedd bi di Tiwaawan nga xam ni ki sore ki jege ñoo fi bokk yam ñoom ñëpp ñu ngi leen di wax xalaltum ahlan wa nazaltum sahlan wa antum bayna ixwaanikum wa dawikum fi ardikum ñuy sant yàlla itam mi nga xam ne mooy ñu fi dajalewaat beneen yoon ci xadara bu tedd bi di di xadara alxaaji malik si radiallahu anhu ni ngir ñu feetewaat juddu ki gën ci ñi yàlla bind te moo di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ki nga xam ni mooy suñu roytuwaay ki nga xam ni eh, li tax mu war a nekk suñu roytuwaay alxitaabu alquraan yi wax na ko ni ko wa innaka la ala xuluqin adim ndax koo ku nekk koo jiite ku mu man doon war ngaa wax lu tax nga jiite ko moom nag yàlla moo ko taggal boppam nu ko ci jikko ya gën a kawe yéeg nga ca ku xam nag jikko yu kawe yëpp yéeg na ca mën naa nekk roytuwaay neel jullit yi muy yonent boo xam ni màggaayam dafa làmb jamono temps yëpp ñu di ko feete nag ci jamono boo xam ne tey àdduna bi mu ngi dund ay métit métit ay crise ci wàllu jikko yu dangereux ndax tey ñi ëpp doole amee alal ji ñu ngi jéema not ci seen alal ñi néew doole léegi euh, dërëm bu nit am dafa wàcc palaasu euh, valeur lii may doomu aadama valeur léegi dëbbante jaasi walla dóorinte ay bali fetal walla jamante moo wàcc palaasu waxtaan ila an qaala lisaanu xaalil aalam di wax naan ndax yàlla daf noo wàcce woon ci kaw suuf ngir musiba wala daf nu wàcce woon ci kaw suuf ngir nu jub mu ni ci jamono boobu nag feete juddu yonent bi sallallahu alayhi wa fàttaliwaat nit ñi ay jikkoom euh, mën nañoo may ñu solalaat àdduna bi euh, mbubb mi nga xam ni moom la amoon bu jëkk ba mu mën a amaat stabilité jàmm dellusi ndox mi dellu fa mu daan dawe loolu yëpp ci waxtaan yi ñuy waxtaan ci gàmm yi dëggam jaarale nañ ko yoon wax ko nañu ko waxe war a waxe te yàlla rekk a tax mën nañ ci jaar yaraat nit ñi walla jaar ci bokk fàttaliwaat nit ñi li nga xam ne lii moom la suñu alquran wax ma ni du sut fa rekk du hasard ñu def euh, chiaaru màggal gi gàmm gi ni inna naa fi sirati rasulil ibra li nu jaaxal yépp bu ñu delloo ci jikko yonent bi rekk dañu mën a gis ay solution nee li jaaxal doomu aadama yi tiital leen yépp bu ñu delloo euh, làmbi wax diine daañ fekk ay solution nee bu fekkee ni àdduna bi fa dellu tey soxla woo justice ak stabilité sociale soo demee ci jikko yonent bi daa ci fekk loo mën a tegtaloo ba am delloo si loolu ci sa biir dund mu ni su fekkee ne àdduna bi tey dafay jànkonteeg ñaawu séddale gi am am sa ba giijal sa moroom amul dara nga war ci kawam te doo ko wàcc ne suñu delloo ci dund yonent bi rek ak ki jikkoom daañ fa fekk solution bu ñu mën a delloo si loola ba ñu mën a am suñu équilibre économique euh, li nga xam ni daal moo nu jaaxal yépp yëpp yëpp tey ñu di ko soow milliers yi di ko waxtaanee ci li nga gis mu jaaxal la ay doomu adama di jël ay arme di ko jëme ci ay mbokki doomu aadamaam yu amul arme amuñu doole ji ñu xeexe nee na loolu yëpp solution boo demee tey ci jikko yenente bi mën nga ko cee fekk nee na bi tey toujours ñi ngi ragal lu ko waral dañu sori valeur yu tedd yi nga xam ni yonent bi bàyyi woon na ko fi mu ni kon nag waxtu dellu si dellu ca yooye jot na nee na te sëriñ si fi paase woon la ko dale ci ñoom Cheikh Umarul Fuuti jaar ci ñoom sëriñ El Hadji Malick jaar ci Touba nee na ñooñu seen dund joué nañ rôle bu bi ñu war a joué pour doomu aadama du des gannaaw jàngal ne nit ñi fi ñuy jaar ba jàmm am jàmmoo kenn ku nekk jëriñ sa moroom ci lu baax te bañ ko jëriñ ci lor ko nee na bu ñu seetee seen mbind ak seen yariñ yi ñu tëraloon ci seen daara ya ak seen mbubb yu woyof yi daan sol eh, ñu dellu ci nañ ko daan defe rekk daañ ci mën a dëgg defaraat jullit bu dëggu jullit bu yiw jullit boo xam ni dafay joxe ay devoiram lu jëkk mu laaj ay àqam nee na Seydi Hadji Malick li mu naroon ci munaasaba bii muy gàmmu daf ko bëggoon def mu daje ko kaay boo xam ni euh, nit ki xam ni individe bi nga xam ni jullit la dana ci mën a dëgg euh, dëgëralaat ngëmam defaraat njubam dàggiwaat ay kartanam yu baax moo tax mu waxoon benn bis fii ci jumaa ji ci kanam ni woote bi dey su ma sañoon bu gàmmu jotee ku ma am daa teew tiwaawan ndax mag mu amul lu dul génn dëgg di ko wax ci génn guddi ci mennum at su sañoon ku mu jabootee daa ko fekke nee na gàmm defuñu ko rek pour daje po ree lekk naan déedéet dañu ko defoon pour ñëw déglu jikko yonent bi mu def benn téere boo xam ni moom rekk moo ko def ci bindkat yi du ko ñuul du ko xonq téere boo xam ni traité ni jikko yonent bi lu jëkk mu juddu ba biñ koy teg ci kuusu ba meel bàyyiwul dara lu mu war a nettali jullit ci ni ko yonent bi daan defe loolu moo tax mu ni wa mawliduhu bihi sharafun wa xiirun fa taadimi injaaxu sujooni waaw bu fekkee ne loolu de moo tax ngay def gàmm nee na gàmm fajuk ajoo nga ci nee na tey jii ñun ñëpp ñu ngiy dund e, jamono tiit ngir ñàkk am e, kóolute ñàkk am léegi jamono bi xëy na rey fukk alali jàmbur njar sa la ngay jaay fexe fexe mu ñaaw waranteeg sa mbokk léegi mooy monnaie bi ñuy inventé ci mboolem goxi àdduna bi nee na amul benn lu day ne sepré ci dënd bi lu dul ñi ko dëkkee ñi ngi ci eh, jamono ragal jamono tiit mu metti te nee na loolu lépp lu ko waral xëccoo bu metti bi nga xam ni ñu ngi koy xëccoo poñetum àdduna koo gis loolu rek moo la intéressé ñaanal ma ma am xaalis ñaanal ma ma am lii waaye doo dégg ku ne ni mukk ñaanal ma sama jikko defal walla ñaanal ma yàlla boole ma ci nangam na ñaanal ma am xaalis rek waaw suma bàyyi nag daan def boo ko ni ñaanal moom xaalis mënuloo koy doyee mu ni moo tax léegi ñu dellu nag ca njàngum lislaam njàngaleem mu tedd mu yaatu moomu nga xam ni mën nañ ci de amee àdduna bu neex nee na bi nga xam ni ci xam-xam ak yar ak forme doomu aadama ci la ko teg ndax kenn mënul dund dund gu baax te amoo xam-xam amoo yar kenn formé wu la waaw nee yooyu mooy fondation yu lu baax li ñu doon wut xam-xam yar formation léegi amatul kiy jàng du jàng pour am xam-xam jëriñ réew day jàng pour am xaalis waaw nee na te yooyu xam-xam yar formation mooy ngën ji yóbbal ñeel génération yi nga xam ni ñi ngi ñëw loolu lañu so war a sonn ci ci wutal leen ko mais pas wutal leen yoon woo xam ni daf leen di puusi ëllëg mel na diine dootul defar nit nee te pourtant xam-xam ak yar nee na gànnaay la goo xam ni ñaari ñëw-ñëw la am nee na kon nag dellu ca njàngum lislaam jot na ci ñun de jot na ñu yaraat suñu doom yi yaru diine yaru diine te diine lenn la wax topp yàlla jàng defar sa jikko topp yàlla jàng yar defar sa jikko waaw mu nag ci turu xalifa bi Cheikh Ahmed Tidiane mi nga xam ni mu ngi ommat xilaafaam gi sori nag lu dul yii nee na mi ngi sàkku ci doomu diine yi ñu dox seen kemtalaay kàttan pour boolewaat seen bopp fii ma baynahum bi mu ñëwee li mu jëkk a wax rekk ni ma fexeel ba ñépp nekk benn bala may ñëw waaye jafe na de tamkinul waxdi fii ma baynahum wal wuquufu janban ila janbin ma sultaati rasmiya ñi nga xam ne ñooy pouvoir bi ñu nekk ak ñoom ci jàppalante ak ñoom ndax duñ leen wocc rek ak yëf yi ni état état état mooy kan état mooy ñun kon nañ leen jàppale ci lépp nañ leen jàppale ci lépp nag bu booba ca la ñuy sañ nag ku ci jàdd yoon ñu wax leen ni jàdd ko yoon nee na nañu liite li ñu man ba am na benn zahira bu bëgg a wesaaroo léegi ci réew mi moo di rey dangay gis nit koo xam ne dañ koy fekk mu dee rek kenn du xam lu ko rey walla chauffeur bu ànd ak patron ba mu yàgg rek mu wàññiku ci kawam di seet ndax dana ko mën a sàkkal pexe walla tëdd ba guddi ay band ñëw ak seen arm fëggali ci sa néeg ndànk nga ubbi ñu ni la indi li nga am wala ñu boom la nga dellu gannaaw wan leen fi sa am am nekk ñu jël lépp ñaar taxaw fa lay yore seen i fiis ku génn ñu taal bal bu ñu jëlee li ñuy jël ba teg ko ci seen oto yi eh, door fëx dem yow tam nga du fëx di yuuxu mu ne loolu nag war nañu seet nu ñuy mënanteeg band yooyu ba dindi ko ci réew mi ànd ak état bi dimbale ko ci moom te mu dimbale ñu nee mi ngi ñaan it teqalikoo gu bari gi am nga xam ni tey kenn ku ne dafa xëy rek ni damay def suma parti politique ba muy dem ay cent et ci réew mu ndaw mu day na Sénégal nee na kooku itam war nañ ko xoolaat parti bu am solo mën a dimbalee nit ñi mën a doxal waaw waaye parti yoo xam da nga koy former pour soo demee ba ca fin ba bu ñuy séddalee ñu mosal la dara loolu. deux cent cinquante six waaw waaw euh, deux cent cinquante ci réew mu tuutee na Sénégal mu wër la ni am na ci parti yoo xam ne amuñu cent personnes ku leen ko laajoon duñ ko génne waaye ñu ngi ko ñu ngi koy def rek pour menacer ëllëg bu ñuy séddale ñu jox leen dara waaw bu ñu la joxee dara noo koy def mu ni itam nu wattu dàgge bi nga xam ni amul waa dàgge bu xam ni amul valeur dem ci rajo bi rek toog dàgge saaga kii kii saaga kële kirite kii kii kirite kaka waaw loolu moom bu fekkee loolu li ñu nar a dund rek nee na ba kañ léeg-léeg ñu dëpp nit ma rajo bi mu saaga président bi saaga keneen saaga keneen ki ka naqare ki woon bu dee ci chef religieux yi mu saaga leen wax lu ko neex ak turuq suufiya nii ñoo def nii ñoo def naa ñoo tardeel nit ñi ñoo def nii ñoo def naa mënuloo ne itam war nañoo seet suñu diggante naka lañ koy faje faj boo xam ne bu jàmm lay doon waaye itam ñu jële ko ci suñu biir société yi nga xam ni ay société diine lañu te dañu war a nekk modèle war a nekk exemple noonu loolu itam ñu def ko ci milieu politique yeeg milieu social yeeg yëpp ñu seet nu ñuy defee aljidaalu alxaawi dagge bu amul dara ci biiram waaw euh, nee topp ñi nga xam ni seeni xalaat dañ ko jaay waaw jaay sa xalaat ndax dem ci biti réew mbëkk fa benn nit walla nit utiliser la yóbbu la foofu jox la loo xam ni dangay ngay dellu sa réew pour yàq danga jaay sa bopp jaay sa xalaat nga ñëw nag di jéem a travailler ñeneen pour ànd ak ñoom ca lu bon loola nee kooku jaay sa xalaat la boroom xalima yi nga xam ni dañ leen luye luye xalif xalima pour ñu saaga ni ñi bind waaw mu ni waxtu yi nag dootul waxtu loolu waxtu jëf la dootul waxtu échangeante ay tuuma rek kii di tuumaal kii kii di tuumaal kaa kee di sosal kee kee di sosal kii ne waxtu wi dootul waxtoom nee na waxtu liggéey bu sérieux ca la ñu toll nee na waxtu sellal nee na waxtu susalante suñu mbagg waxtu dogu ne ba mujj feeñ ci suñu société yi ni ko yàlla waxe ci alquran falyabudu rabba hadha al beyt alladi atamahum min juin wa amanahum min xawf te suratu quraish ma nag ci bis turu xalif général de Tidiane Cheikh Ahmed Tidiane Sy mi ngi sant ñëpp mi ngi sant président de la république Macky Sall ak mboole membre yi gouvernement ci li nga xam ni def nañ ko ci ay réalisation ci réew mi ak ci biir mbootaay gi ci ay orientation ci puus leen ñu jëm kanam bëgg delloo ci mbay parce que réew dana toll foo xam ni nee na mbay rekk moo ko mën suqali ne ñi taxawaalu ci mbedd yi di jaay ñaari lañset ñetti puso ñaari déey benn paquetu postiwal daal ñaari mouchoir <laughs> mu ni ñooñu dem àll ba bayi moo ko gën ndax loolu duñ ci am dara te àll ba buñ demee bayi yàlla mën na dem ñu am ca dara mu ni ñuy sant ko nag ci li nga xam ni mi ngi koy jéem pour dolli nit ñi ci ñu liggéey te loolu nee na yu diine yee leen ci jëkk Seydi El Hadji bind na ci wax na ci ba tàyyi Serigne Touba bind na ci wax na ci ba tàyyi ñeneen ñu mel na ñoom bind nañ ci wax nañ ci ba tàyyi pour wax ni nit diineem ngëmam euh, jaamu yàllaam ak am lu mu jàpp pour liggéey waaw am lu mu jàpp pour liggéey ba ñu jégalee digalee nit ñi nañu jaamu yàlla nañu gëm ab turuqu suufiya turuqu suufiya yi liñ la jox boo ci jàppee daf lay defaraat ba nga jag mu ni soo ci jógee nag na nga toppatoo sa liggéey waaw mbay Seydi Hadj Malick dañ ko laaj jullit lan moo war nekk métier am mu ni métier am de mbay ak ak commerce ne loolu mooy métier jullit mbay ak commerce ngeen demaat exercer yooyu te moom jox woon na ci exemple amoon na ñaari boutique di def commerce gis ngeen fa mu daan béyee jag saaw ba léegi mu nga fa ah sëñ Babacar Si tam gis ngeen ko ñaari tool la amoon bii ca jàmm gën bii ca baal eh, pour joxe rek exemple nit ñi dem liggéey ñu daan sol seeni bot di ànd ak seen njaboot di dem teewe liggéey ba ba mu sotti loolu nag nee na mi ngi koy fàttali nit ñi ay yëggoon nga nekk ci mbedd yi di jaay lu amul njariñ loo xam ne doo ci am benn résultat bu la mën dimbali walla mu dimbali sa njaboot nee nga dellu ci mbay seeti ba xam daa ci mën a am sa doole wala doo ci mën a am sa doole nee mi ngi leen di gërëm itam ci effort yi ñuy def yi ñu def ci gàmmu gi di ñaan yal na leen yàlla fay mi ngi leen di gërëm itam ci jéego yi ñuy def pour liggéeyal euh, xeet wi ne nit ki nga xame ni mi ngi sant عاهل المغربية أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين محمد السادس at mu jot dana fi yónnee ay délégation délégation ku xewle ci nitu diine rek dana am délégation bu jóge Maroc ñëw teewe ko nee na rawatina gàmmu Tiwaawan ak gàmmu Tiwaawan at mu jot leen yebal ci délégation bu ñëw teewe ko tabarakallah ak i ndimbalam ak taxawaayam man mi ngi ñaan yàlla mu wattu ko def ko itam muy ndëxanteef neen xeeti jullit yëpp nee ni mu sante noonu al ahila al noonu la sante corps diplomatique yi nga xam ne dañ leen accrédité fii ci Sénégal ci taxawaay bi ñu taxaw ci suñu wet bu gàmmu jotee kenn ku ne la nga xam daañu ko digal la nga am daa ko def ci këyit wax nu ko ni nii ngeen koy jëfandikoo nii ngeen koy defee ni ki nga xamee ni itam mi ngi gërëm ñëpp rawatina délégation yi nga xam ni ñooy jóge biti réew jóge ci continent bu nekk may na may gërëm itam ñaar ñoo xam ne xaw ma ñooy man xaw ma maay ñoom moo di Ababacar Sy Mansour Serigne Mbaye Sy Mansour wala Alxaaji Malick Sy Abdoul Aziz ci taxaw waaye bi ñuy taxaw ñoom itam di nu jàpp di ma jàppale ci yan bii ñu ma yan pour ma nekk làmmiñu kër Seydi El Hadji bu doon suma jëmm rek duma ci am benn tagg duma ci am benn réussite waaye ñoo ma jàppale ba lu naroon diis rek mu woyof euh, kon yenn leen yàlla fay ak lislaam ak bokk nee na mi ngi sant itam président COSCAS COSCAS moo di euh, jihaas bi nga xam ni mooy organiser gàmm gi di ci jouer bu am solo dootul nelaw guddi dootul nelaw bëccëg pour rek gàmm gi réussir ñoo fiy jëkk ñëpp di ko organiser te daañu dem ñëpp daañu ñibbi lu yàgg ñoom rekk ñu des fi di dajale bagage ak delloo yi ñu àbboon nag di dimbale ñi fi des te amuñu doole dellu loolu la kosaas moo koy def nee na kon nag mu ngi ñaan yàlla bëbbal euh, barkeem ci seen kaw mu fajal leen seeni jàngoro mu matale jàmm mu faj aajo yi mu sutural ayib yi mu jéggale bàkkaar yi mu jàng damm-damm yi su ko defee mu mën a nekk ndimal ñeer jullit yëpp fu ñu mën a nekk barke yàlla yàlla na wàcc ci seen kaw ñu wax wal aqibatu lil muttaqin yal na leen ci yàlla boole wa kullu amin wa antum bi xayr assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf yal na yàlla guddal far wi yal na ko yàgg taxawu yàgg tarak jooju ak jabaru Cheikh Seydi El Hadji Malick yëpp léegi nag ñëpp tàllal seen loxo sëriñ Abdou ngi ñaan la ñëpp tàllal loxo te ne amin allahuma amin si allahuma amin si allahuma amin si allahuma amin si allahuma amin allahuma amin allahuma amin si allahuma amin si allahuma amin allahuma amin allahuma amin allahuma amin si allahuma amin allahuma amin allahuma amin si allahuma amin si allahuma amin allahuma amin si allahuma amin si allahuma min si amin ya rabbil alamin allahuma min si allahuma min si allahuma min si amin ya rabbil alamin amin